ñaari doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ak kenn koo xam ne ni am na ci ay gaañu gaañu moo tukkee nag ci suuf si nga xam ne ni màbb na ci Touba ci tokkër bi loolu nag mu ngi am ci liggéey bi nga xam ne ni Touba ci kanam mu ngi koy amal lu mat weer ak léegi ngir nag taxawu lépp lu jëm ci assainissement bu Touba gannaaw bi ñu tàmbalee ci tokkër bi jëm si ci station Daaru Xuddoos bi ñu egsee nag ci tëli bi bàyyeekoo ci tëli de garage Daaru Muxti jëm si tëli Gédé ci croisement bi nag bi ñuy gas foofu ci la suuf si màbb nag ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan kenn ci am ci ay gaañu gaañu ci teewaayu police sapeur pompier ak ñi nga xam ne ñoo di waa Touba ca kanam ak yenn mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoo dëkk ci wet googu ñaar ñooñ nag sapeur pompier seet nañ leen lu mat waxtu door leen a gis keneen ki nag moom dañ ko teel a rawale ba jamono yi mu ngi ci loxooy kër docteur ñu koy toppatoo. ndax ñaar ñooñu nga xam ne ni ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw bi suuf màbbee ci seen kaw ndax ci ouvrier yi lañ bokk wala ñu doon barkeelu la wala ci Baay Faal yi nga xam ne ni ñoom lañ jox liggéey bi lu ci mën a am daal yóbbu nañ leen ngir identifier leen di xaare ni nag jamono yi ay kàddu yoo xam ne ni war naa bàyyeekoo ci Tuubaa ci kanam ñeel nag naqar ak tiis nga xam ne ni dal na ci mbooleem jullit yi rawatina nag murit yi nga xam ne ni jamono yëpp seen jaayante jëm ci Tuubaa ci kanam fës na lool